voilà asalaamaaleykum ma chers internautes solution euh, TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax euh, di leen euh, jaajafal comme ni ngeen ko gisee suñu ginnaaw ñu ngi fii ci palais de justice bu Pikine géjawaay tey nag li ñu fii daal di dajale mooy ci mbirum Aziz Dabala ak ki nga xam ne rek moom mooy Wally ñu daal di leen di faat niki mardi passé nag ñu daal di jot li nga xam ne rek moom mooy boobile information depuis lors nag sénégal yi dañoo dal di taxaw temb ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suñu takk der yi ngir rek mbir mi daal di leer ngir ñu mën a xam exactement ana ñan ñoo daal di jëf jëf ju ñaaw joojule fekk leen seen appartement technopole daal di leen di euh, faat mu nekk ab mbir moo xam ne doy na waar waaye nag gis nañ ne depuis lors nag version yi bëri na lool lool lool ku nekk ma ngay wax ne lii moo ko waral lee moo ko waral waaye nag ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suñu takk der yi ginnaaw rek ba ñu jotee ci boobu li euh, dossier def nañ ci la nga xam ne euh, daal nañ koy mën ba waa dikk sax ñoo daal di dossier jël ko lekk li nga xam ne moom mooy en charge ngir rek élucider waaye leeral ñi nga xam ne ñoom ñooy askanu Sénégal euh, mbir moom na la daal di demee waaye nag moom benn tur boo xam ne euh, depuis meurtre ba léegi ñu ngi ko doon ci dégg muy euh, Nabou lay nekk xarit bu jege lool lool lool ci ki nga xam ne moom mooy sa Dabala muy wuy ji suñu borom ba tax na rek boobu lee mbir ginnaaw ba mu xewee nag lu turu turu Nabou fees na ci bu baax a baax waaye nag la waral ñu bëri di ko tudd mooy na nga xam noonu la melo ak Aziz waaye gis nañ ne ba mu demee ba ci biir gis nañ ne enquête ba ma ngay wéy di continuer am ci ay nit ñoo xam ne jàpp nañ leen ñenn ñi Touba lañ leen jàppee ñenn ñi fii euh, ci biir euh, Ndakaaru lañ leen daal di tegee loxo ba ki nga xam ne sax moom mooy Nabou Leye tamit euh, moom itamit teg nañ ko loxo jamono ji six suspect lañ amoon ki nga xam ne rek moom mooy septième bi waa dig ñu ngi doon ko wër gisuñu ko woon waaye ni ki démb la ki nga xam ne rek moom mooy papam di Fallou Diop mi nga xam ne tamit tudd nañ ko ci mbir mi lee dafa dawoon bu dig bañ ko wëree di ko wër ba sonn nag papay xale bi moom moo daal di mujjee livre doomam te ñi nga xam ne suñu waay takk der yi ba tax na rek ndiki démb yi tamit la ñu daal di dañ laa daal di déféré euh, au parquet waaye nag dañoo gis ni dañoo amaat beneen retour de parquet euh, ndiki tey moom moo waral rek ñu teew fi ngir dégtal leen xibaar yi nga xam ne rek moom moo fi daal di am la nga xam ne aussi jot nañ ko comme xibaar comme ni ko libération euh, ndiki tey daal di xëyee ndax ma ngay xam le que ni parquet bu Pikine Guédiawaye ma ngay sàkku rek ngir ñu daal di ubbi ab information judiciaire pour assassinat ndax loolu lañ leen daal di toppee ak yeneen accusation Euh, yu euh, euh, grave ba tax na rek parquet bi ba léegi moo sàkku rek ngir ñu daal di leen di place yi sous mandat de dépôt maanaam daal moom parquet la mu bëgg rek mooy que ñu daal di leen yóbbu ci kaso ba loolu nag càkkutéefam la mais nekkul nag càkkutéefam rek le juge bi war a topp waaye nag moom am na plein droit rek daal di wax la nga xam ni moom la bëgg ci boobu li dossier comme ni ma a waxee tantôt ndiki démb lañ leen déféré moom Nabou Leye ak ña nga xam ne rek ñoom la daal di àndal am jamono ji nag doyen des juges moom moo war a addu uh, ca boobile ca boobile uh, mbir waaye nag am nañ fii kenn ñu daal di dégg ko mu daal di wax li nga xam ne rek moom mooy xalaatam e ca boobile mbir sëñ ñu ngi leen nuyu. jaar nañ la concert. tour bi. Cheikh la professeur journaliste. voilà Cheikh ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ñu bëggoon a xam rek sa xalaat uh, ci biile mbir. xalaat bi mooy sénégalais yi ko amee yëpp ki nga xam ne ne moom mooy Nabou Leye Sy. jàpp nañ leen jamono yi passé yóbbu leen fi nga xam ne mooy euh, division des géographies criminelles di dik euh, démb nañ leen indi fi nga xam ne ne mooy au parquet de Guédiawaye euh, jébbal leen le procureur de la république du tribunal de grande instance bu Pikine Guédiawaye ba leen jébbalee démb déglu nañ leen ba leen dégloo gis ngeen lu fi xew lépp danoo amaat retour de parquet suñu amee retour de parquet comme ni ma ko waxoon démb moom laa koy waxaat retour de parquet ça ne veut pas dire que fii police bu ñu la jàppee wala police bu njëkk a tëj sa sa sa sa information judiciaire police boobu lan lay yóbbu. Ah, par raison de sécurité xam nga mbir mi Pikine la amee waa Pikine ñoom ñoo njëkk a yor dossier bi après ñu jël dossier bi jébbal ko waa dikk avant ñi koy jébbal waa DIC sax fekk na ki nga xam ne mooy waa brigade spéciale bu Touba jàpp ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Diawo yu andi ko DIC léegi nag retour de parquet bi. pour raison de sécurité ndax histoire yi fi am te gars yëpp Pikine leen dëkk gannaaw raay leen dëkk te Pikine euh, police bu Guédiawaye ak police bu Pikine seen i élément doyul pour raison de sécurité ak ñoom seen sécurité loolu tax ñu yóbbu leen commissaire central voilà mais ñu dégg comme ni nga ko waxee Mamadou Lamine Diaw ak euh, yeneen euh, six sept personnes wala six personnes ñu tudd ci Nabou Guèye Nabou Leye autant pour moi ak ni mu meloon ak Aziz est-ce que te Sénégalais ñu ngi ñaan sax loolu lépp bañ a am parce que niñ meloon ñoom ñaar. waaw loolu moom justice moo koy déterminer nan ko nangul euh, présomption d'innocence xam nga sénégalais yi bu nuy bu ñuy jël ni rek di ko chargé suspect la rek suspect la ndax fekkee le jour des faits gis nga waa ji déggante ak nga moom téléphone ànd nga ak moom ni ñi xam la ak moom mu dee ñu xool sa réaction ah yoon fekkoon yaayam la sax da ko jàpp ah. Aziz tey su fekkoon dañ koo rendee këram papaam ak yaayam yëpp dañ leen di jàpp ak ay magam yëpp dañ leen indi loolu moom mooy yoon ba ñu cerner xool ñan ñoo ci bokk ak ñan ñoo ci bokkul loolu justice moo koy déterminer Nabou lay ak ñoom ñëpp yàlla bu mu def mais yoon su demee ba na leen niip teg la loxo am na ay sources yu leer a leer police bu Sénégal du làmbatu de ils sont forts ils sont plus que forts ñooy police bu gën a xariñ Afrique police bu Sénégal du lambatu rawatina la waa DIC enquête dong lañ jàng jàngunu leen jàngunu dóor jàngunu maas enquête lañ jàng waaw kon Nabou Leye nen ko nangul présomption d'innocence ba justice di leeral waaye euh, li nga xam ne ne mooy source yu ñu jot ñun source yu ñu jot ci li nga xam ne ne moom mooy euh, euh, suñuy source bopp ñun moom neexut neexut neexut a génne si mbir mi waaw xam nga njëkk nañ ko woo déglu ko le samedi après ñu bàyyi ko relaxé ko mu dem mais les téléphones sont parlés téléphones yi ñoo wax ndax ba mu génnee ñi nga xam ne ne tey jii ñoom leen taqal si mbir mi ñoom la dem wooteel rek téléphone xam nga day day naqaree génne si mbir mi quoi mais nag en fait euh, même justice bi koy déglu juge d'instruction bi koy déglu le doyen des juges da koy nangul euh, présomption d'innocence euh, lu lu des. procureur moom day chargé moom day chargé moom nu mën a diise rek. parce que mandat de lay sax. c' est le maître des poursuites c' est le maître des poursuites moom chargé lay def soo déggee le procureur de la république moom day chargé léegi déchargé nag yow yaa ko mën a def sa wala sa avocat. Hmm. mais ñu nemmeeku ab insécurité euh, ci Ndakaaru parce que ñu ngi wax le cas de Abdou Aziz Dabala et aussi euh, Bargny am na tamit benn xale bu jigéen bu faat Grand Yoff aussi euh, am na benn taximan bu fat Pikine tamit excusez-moi yëmbal benn baraak aussi ndiki noonu insécurité bi lan nga ñu ci mën a ut ci ay solution ndax yëmbal benn oncle bu rayu jarbaatam Bargny benn xale bu jigéen bu dee ñu koy seet depuis dimanche. ba teg nañ loxoom benn xaritam bu jigéen barki dem Grand Yoff ñu rey fa benn nit ban taximaan xam nga yooyu yëpp suñ koy dajalee euh, sama xel day ñëwaat rek si li nga xam ne ne moom mooy euh, crime contre l'humanité doomu aadama yi amatuñu repère sénégalais yi la jeunesse xamatuñu fu ñu jëm amatu amatuñu référence mag ñi do yaay yi yaay yi yaratuñu seen doom yi papa yi yaratuñu seen doom yi danu dañu fii seen responsabilité ndax yenn crime yi ngay dégg nit taxaw si kanam papaam saaga nit taxaw si kanam yaayam saaga wala nit saaga ndeyam wala mu saaga baayam publiquement xale amatul repère mais les responsabilités sont partagées benn bi état la état moo war a garantir suñu sécurité ñoom ñoo war a garantir suñu sécurité parce que yow sax tu exposé parce que journaliste nga sax dara leerul parce que li ñuy def tey ji maa ngi à travers le monde àdduna bépp ak may seetaan nit man na ma indi ci li may wax li may wax man na bañ a kenn est-ce que man je en sécurité mais yàlla moo ñuy sàmm ñun journaliste yàlla moo yi sàmm mais képp koo xam ne yaa ngi wax na nga wax lu leer na nga wax lu solide na nga wax loo xam ne ëllëg su la yoon woowee nga wan ko ay source source sax la lu koy nëbb waaye nanga wax lu leer mais insécurité bi daal lu koy luy solution bi mooy gën a renforcer police de proximité yi génne leen ci bureau yi ndax fii am na police de proximité lu mu fi def CREPS am na police de proximité centre am na ko maire yi am nañ ko conseil départementaux yi am nañ ko lu ñuy ut foofu foofu nañ koy yóbbu service d'ordre yi police de proximité yi yóbbu leen ci quartier yi man loolu laay ñaan soon excellence monsieur le président de la république ak ñi nga xam ne ne dañ daan doon ay conseil de quartier jeunesse yi nga xam ne dañ daan garder seen quartier di toog di nuit blanche di ataaya kër yi def benn solidarité chaque fin du mois ñu neexale leen 1000 francs 1000 francs pour ñu koy attaaya soo gardee sa koñ ba 5 heures du matin nga dem nga dem tëddi ku fa dugg à partir de minuit ñu wax la fan la jëm fan la dëkk fekkee dañ la fii la dëkk nga gunge ko ba këram fëgg loolu mooy waral gi nga sécurité bi du état rek de ñun aussi ku nekk war ngaa mën a sécuriser sa sa sa sa sa quartier merci beaucoup. allez plaisir partagé. voilà merci beaucoup mi ngi noonu nag ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax moom nag itamit wax na la nga xam ne rek moom mooy xalaatam ci euh, mbir mi la mu wax rek euh, daal dinay euh, leer waaye nag ba léegi ñu ngi fii ci palais de justice bu Pikine ak Guédiawaye tey nag comme ni ñu ko waxee rek tantu li ñu fi daje lépp loo xam ne rek fës na fi ci wàllum xibaar dinañ leen ko daal di bokk ak yéen waaye nag yéen a ngi gis nii nii suñu waay takk der yi ña nga taxaw ci euh, bunt bi comme d'habitude rek waaye nag gis ngeen i tamit euh, nit ñi nañu euh, taxawee rek ca wet ga yéen a ngi koy gis noonu en a ngi gis nit ñi nañ taxawee ca wet ga sans doute rek du ñàkk ña nga xam ne ñoom ñooy ñëw pour soutenir ña nga xam ne ñoom lañ daal di teg loxo ñu nekk ay suspect comme niñ ko waxee rek à chaque fois xamaguñ exactement ba xam ñoom ñoo def parce que loolu justice moom moo koy leeral mais la gis ba jàpp ko rek mooy que buñ leen fi téewee ba léegi rek mooy am na leen lenn loo xam ne rek du ñàkk euh, laale nañ côté euh, police wala ñi nga xam ne ñoomee suñu takk dere bëgg nañ cee am lu leer looloo waral rek ba léegi ñu téye leen mais nag amaguñu kenn koo xam ne rek mën nañu ne ñipp ne kii kat moo def mbir mi li waaye nag ay suspect lañ kon nag am na lenn loo xam ne rek euh, dañ leen koy daal di euh, may muy euh, présomption d'innocence mën nañ leen ko ko may mais nag ñu xaarandi ba xam justice ana lan rek lay daal di décider ci ñoom comme nuñ ko waxee aussi muy le parquet ndax parquet à chaque fois rek dafay daal di chargé moom nag lam leen daal di gis rek mu gis mooy que ñu ubbi ab information judiciaire waaye tamit daal di leen di doox ab mandat de dépôt maanaam daal yóbbu leen ca euh, kaso ba li ni euh, le parque sàkko liki démb tamit ñu daal di leen di euh, maanaam delloo tey ñu indiwaat leen pour rek ñu daal di am li nga xam ne moom mooy lu gën a leer amaana dañoo daal di pareegul moo waral tey ñu pour ñëwaat mais daal lu ci munti am rek mooy que ñoom daal xam naa ne seen cas euh, mi ngi gën a critique lu ñuy gën di dem rek mbir ya di gën a euh, metti ci ñoom nax niki tey dinañ mën a xam bu baax a baax dinañ am mën am ak information as boo xam ne mën na dañ daal mën na di gindi ñi nga xam ñooy askan bi la nga xam ne aussi aussi mën nañ leen koo fàttaliwaat bu euh, baax a baax a baax muy version yi nga xam ne euh, génn na kanta ci wàllum euh, xaalis bi nga xam ne moom moo leen boole loolu tamit ci version yi la daal bokk waaye nag la nga xam ne ñu ngi ko doon wax que ne génn nañ xaalis ci Wave Aziz bem déet loolu nag ñu ngi wax que ne amul waaye tamit portable Aziz ñu ngi xamal que ne fii ni ci Colobane lañ ko daal di jaayee ki nga xam ne rek moom mooy téléphone yi la ñu jaayee foofu noonu ci Touba loolu tamit la ñu daal di xamal uh, ci ay uh, xibaar waaye tamit nag nekk na nekk na daal meurtre boo xam ne métti na askanu uh, lëmb métti na askanu Sénégal bi yëpp parce que ñoom seen ay métti dañ koy manifester moo xam ci réseaux sociaux yi moo xam tamit à travers sénégalais yi ñoom daal l'essentiel la ñu bëgg rek mooy que justice soit faite pour Aziz Dabala. ca xoolee ba xool. day jar sa deux cent cinquante mille wala deux cent soixante quinze mille chaque mois ay ñun ñëpp xam nañ majeure partie boobee amuñu liggéey bii ñuy liggéey buy firndeel ne ñoom ñooñee loolee am nañ ko fan la ñuy jëlee xaalis boobee dañuy nekk si ay mbir yoo xam ne saa ne mbirum koppar la te dañ cee laalante beneen bi waali dañoo nekk si réew moo xam ne ay jamono da ngay gis da ngay gis doomu diw bu defee naka sudul noonu doomu keneen ka da koy corriger mais la cas de Aziz Dabala xam lu mu lay andi mooy toll nañ foo xam ne nit boo mënalee sa bopp da ngay dem mais am loo xam ne mooy bopp sa bopp la mooy si appartement yi am na loo xam ne si dëkkum nasaraan yi lañ ko doon gis dëkkum nasaraan ngay gis appartement ak ni mu toll kenn ku ñëw bu ñëwee day tëju kenn ku bu ñëwee day dem maanaam kenn nekkatul si mbiram mais mbir nan lay xewee si bërëb nit yi di yuuxu te ña nekk ca appartement ba jéemu ñoo xool li xew xam nga loolu andi mooy nekk nañ di dund dundinum tubaab nekk nañ ba nekk si loo xam ne mooy maanaam bopp sa bopp bopp sa bopp nag tant que moo di am mooy saa su ne fii ngay gis ñuy agressé kenn mbooloo taxaw fii mën ko jàppale kenn di ko li jël beneen bi mooy police ak gendarmerie ñu am ca wàll man bi mbiri amee dama ne malheureusement mbiri am na guddi di nga gis police wala gendarmerie jaar si li nga xam ne moo di tali bi jaar si li nga xam ne moo di VDN bi ramasse ay nit yoo xam ne seen i yoon nekku ca encaissé seen i 6000 balais et sincèrement buñ ko waxee buñ ko waxul xam nañ mbir yi fan lay xewee mbir yi xewatul si kaw talibi bi mbir yi xewatul ne bu mërt amee nga ramasse ay nit yu doon liggéey ñu jël seen i 6000 nañu dem si koñ yi nañu dem si les coins et les recoins wu quartier yi buñ fa demee mbir yi fan lay xewee ay gendarmerie ak police war nañ def seen liggéey ca nam ca waree beneen bi aussi. les parent yooyu yaakaar naa ne kenn ku ne da ngaa war a jël seen responsable ñun ñoo ngi fii wala peut-être yaa ngi jóge ba kaw la est-ce que tes parents dinañ toog deux jours du ñu jéem a xool yow si lan nga ne dañoo nekk si réew moo xam ne kilifa yi si boppam wala nit yi dootuñu yëglu doo dem ba voyage mën nga tukki nit moo ngi université seeni waa kër toog cinq jours gisuñu ko nit jóge université mu ne moo ngi ñibbi Bambey waa université toog cinq jours kenn gisu ko waa site jàpp nañ ne kookee dem na si ay waajuram waa Bambey jàpp nañ ne kookee moo ngi université si juróomi fan yooyee nit ñàkk na ca bakkanam kenn xoolu ko kenn lijjanti ko nekk te malheureusement rey nañ ko jël nañ li nga xam ne moo di bakkanam moo tax saa ne foog ngay yëglu foog ñuy yëkkati suñuy téléphone foog ñuy nemmeeku ñu ñuy jege foog ñuy xool nit ki nga xam ne dalaa jege ngay xool saa ne si lan la ne mais tant que ñu la jege lijjanti woo leen lijjanti la kenn ku nekk yaa ngi si wutum xaalis kenn ku nekk tu préfères nekk whatsapp waxtaan ak ñeneen que ñi nga xam ne ñoo lay jege mooy nit di ko rey ba kooram tàmbalee am nu ca mel te kenn du xoolati kenn du xam si lan la nekk en tout cas baal ma mais insécurité bi nga xam nemmeeku nañ ko fii ci Ndakaaru parce que Pikine euh, excusez-moi yëmbal benn braque nemmeeku nañ ko euh, baax ñu aussi Grand Yoff ak bo ci bosu Aziz bi insécurité bi lan moo koy expliquer sa waay di nga gendarmerie police xam lu ñu man mooy jàpp nit mais mbaa xam ngeen ne insécurité moo ngi am yow sa koñ waali koñam paa bii koñam grand bi man mii sama koñ kenn ku nekk xam nañ ñay def naka sulul ña nga xam ne ñooy jaay yamba bi ñay jaay dorog ba ña nga xam ne ñoom ñooñu ñooy cimetière ñun suñuy waajur suñuy yaay suñuy suñuy suñuy yaay yi nga xam ne heure bu fajar jotee ñoom ñoo ñooñu dañuy bëgg liggéey ji ñun doom yi ñooy jug si boppam di leen yóbbu pour ñu mën a am oto maanaam ñun ñu si koñ bi joué ñu suñu responsabilité te li gën a doy waar ñaar ak nit ñaar personne ñooy nekk si koñ seme terreur maanaam terreur kenn du ca wax dara koñ ba nga xam ne fa la ñu nekk ñoom it jëluñu li nga xam ne mooy seeni responsabilité mais beneen tant ñoo ngi am réew moo xam ne jàngaluñ leen li nga xam ne suñuy maam moom lañ fi bàyyi woon tant que delloo ñu leen ginnaaw jàngal nga xam ne mooy cosaan tant ñoo ngi leen di bàyyi ñuy seetaan crime district tant que ñoo ngi leen di ñuy seetaan ay meurtre tant que ñoo ngi leen di bàyyi ñuy seetaan li nga xam ne moo nekk di xew jamono gii ah, si réseaux sociaux loolu day am mais imagine ay jamono dañu doon wax ne nit da ngay rey nit sa xel maanaam du dal mais le cas de Pierre Dione moo rey nit ki rey ko taal ko joxe interview ne kookee ab golo la Binta Camara ca Tamba xaritu papam rey ko liñ naan dëmm dalay rey jaale la rey nit ki dem andi sees yi nga xam ne moom la ñu defee li nga xam ne moo di moo di euh, moo di dëj bi maanaam pour wax la ne nitit rey na fi nit ca maanaam ca Saint-Louis. ak suspect tamit. maanaam nit rey na fi nit daggate ko def ko si sax en loolu pour wax la ne weesooti nañ si réew moo xam ne nit ñi seeni xel day daal dal weesooti nañ si nit koo xam ne maanaam tant ñoo ngi jëfandikoo dorog tant ñoo ngi jëfandikoo sàngara. tant ñoo ngi jëfandikoo assis tant que ñoo ngi jëfandikoo loo xam ne loolee day tax ñu tàqalikook suñu sago jàppal ne yii nii di xew bu la bett. léegi léegi est que mën na ñëw ci solution yi. ba bay ba si kanam ma am lu ma la jënt door a ñëw. ma jox voilà excusez-moi. alors nañu aussi euh, cas bi amee ñi siy wax bari na ci nekk yaa ngi siy wax mu mel ni expert nga si loolee tamit na nga ko gisee influence bi nga xam ne ñu siy wax bari na ay tiktokeur ay influenceur jël dossier bi mel ni moo ko gën a xam justice alors que am nañ ci yoon. waaw euh, loolu boo gisee li tax euh, c'est-à-dire mbir mi dafa xew ci le monde du showbiz xam nga bu fekkee dafa xew ci le monde du showbiz ñoom dañoo am seen seen tiktokeuru bopp ñoom dañoo am seen waxkatu bopp dafa am ñoom li ñuy relayer information dafa am ñoom lu ñuy doxalee ba nga xamante ni bii lu xew yi lu xew fii buñ ko bëggee xamale ñoom ci canaux yooyu lañ koy jaarale bien que nag presse classique bi mi ngi fi journaux parlé yaa ngi fi journaux télévisés journaux écrits mais terewul ñoom ñoom dañu am seen tiktokeur bopp yoo xamante ni bii dañu bâtir seen célébrité euh, boo taxay boo gisee tey lu tax ñu siiw c'est parce que dañ naan kër Waly nangam xew na fa kër Youssou Ndour nangam xew nañ fa ci loolu la ñu bâtiree seen célébrité loolu nag euh, nekk na aussi loo xamante ni bii euh, ngaañ des fois da ciy nekk parce que journalisme xam-xam la du da ngay dégg rek mbir daal di ko ñëw euh, relayer parce que mën nga dégg mbir moo xamante ni bii c'est vrai mën nga def recoupement mu wóor la ni lii lu am la mais nga xam ni yow en tant que patriote lii public bi war koo xam parce que maanaam maanaam li muy yàq moo ëpp li muy defar loolu lépp nag dañ koy jàngal doomu aadama tàggat ka ci mën nga ko jàng dans le tas comme mën nga ko jàng dans les écoles mais ak lu mën a a mën a xew danga nga a xam ni toutes les informations ne sont pas bonnes pour donner au public le gouvernement bi am na ay informations yoo xamante ne bii pourtant il travaille pour le peuple sénégalais le peuple sénégalais bi la xewee peuple sénégalais bee moom mais terewul du ñu ko génne pourquoi on parle de top secret de top défense parce que du lépp la ñu war a wax donc loolu moo tax daal ñi nga xamante ne bii loolu dafa nekk seen jubuwaay ñu bëgg nekk ay tiktokeur bëgg nekk ay relayeur li ñu leen di ñaan mooy jàng du wees mën nañu dem ci yenn rédaction yi di leen côtoyer laaj li nga xamante ne bii mënta ñàkk wala dem sax ci ñi parce que ñu ci bari ay jeunes lañu weesoogul mais ñu dem ay sestek dem ci yeneen école yi fexe parce que léegi jamono toll na foo xamante ni bii yow sa portable mën nga jàngal sa bopp mën jënd say guide mën nga def lépp télécharger ko di jàngal sa bopp ba nga xamante ne bii su fekkee information rek moo la tax a jóg nga daal di ko war a mën a mën a véhiculer te ca ca na mu waree mais daal euh, niñ ko waxee sànq lii nekk na loo xamante ni bii war nañ cee jóg parce que tamit euh, niñ ko xamee yëmbal am na ko fa rey jarbaatam te li ci gën a garaaw mooy mbokk mooy rey mbokk waaw bu njëkk ba nag mbokk moo la daan protéger mais léegi sa mbokk moo lay rey. li retournement de situation boobu lan moo ko waral. waa li ko waral mooy l'éclatement de la famille la dislocation de la famille bu njëkk ba ñaar ñu bokk bu ñu dajee da ngay xam ni ñaar ñii dañoo bokk mais léegi mën ngeen bokk ndey ak baay toog ay at di tongante du ngeen tuddante yooyu yëpp nekk ay jikku yu bees yoo xamante ni bii euh, lu daawul woon am nag bis bu amee il faut mu am résultat yoo xamante ni bii kenn daaw ko woon di gis nit ñi jegeyantoo dañu mais dañu soreyantoo parce que jegeyantoo bi li ko li ko waral mooy. waaw waaw waaw maanaam euh, li ko waral mooy euh, jege yantoo bi mooy li ko waral mooy nit ñi dafa am lu ñuy wax la démission des parents booy xëy fajar ñoom ñoo ngi nelaw jógagunu booy wàcc minuit wala 23 heures fekk ñoom ñu ngi nelaw donc yow amuloo temps pour def ak ñoom réunion de famille amuloo temps pour yedd leen amuloo temps pour maanaam dama koy faral di wax yar dafa nekk loo xamante ni bii nit du yar boppam nit du yar boppam maanaam yar leer la guy jóge ci leer góor yàlla dem ci beneen góor yàlla il faut nit defal la ko maanaam mënoo am ay gidd am ay livre téléchargé nooy nekkeek sa dëkkandoo nooy nekkeek say mbokk nooy jullee nooy jàppee ba mokkal ka kenn mësul gis ba àdduna di àdduna ba léegi ñu ni diw ku la yar nga ni kenn yaruma maa yar sama bopp kooku yonent bi salallaahu alayhi wa sallam rek la nga yàlla def te moom dafa ni yàlla ma yar te rafetal yar gi kon il faut mu am intervention humaine dafa nekk euh, ci centre éducation nit moo mën a yar nit mais nit ki mënut a yar boppam te comme ki la doon yar talatu la mais lii ñuy gis yëpp foofa lay jóge waaw lii ñuy gis yëpp foofu lay jóge waaw ci gàttal euh, noolu la donc yii yëpp ñuy dund daal ñu ngi ñaan yàlla dem ba un jour mu nekk suñu ginnaaw ndax nag mënuñu ni un peuple un but une fois maanaam benn xeet benn jëmuwaay benn ngëm-ngëm ba pare toujours ñuy reyante dégg ngeen li xew Bargny ñu yónni ko soow dimanche boobu ba léegi ñu mujj ko retrouver dans une mare ñu rey rey ko sànni ko foofu doo xam ndax dañu bëgg jël ci moom dara doo xam ndax te lii lépp alal en général moo koy sous-tendre mooy nekk ci suuf ah yëmbal tamit seen nijaay nga xamante ni nijaay dañ doon wax sax naan moo ëpp doole papa moo doole yaay parce que moom yaay la ba pare doon góor teg ci kooku bu demee ba jël paaka wala leneen di la rey xam nga ni loolu loolu loolu amatoo refuge daanaka laaxira li ñuy wax rek na boo jubloo sa papa mu daw boo jubloo sa nijaay mu daw ah daanaka ñu ngi koy commencé eh, mi ngi ñuy commencé xeeñ donc nag euh, il faut daal ñu jublu ci wàññi rey yi te xam ni la justice est là pour tout le monde nul ne ne doit faire justice pour soi bu ñu la tooñee am na ay voies légales yoo mën a jaar bu dee alal nga jotaat ci bu dee leneen bu dee say àq ak say yelleef nga jotaat ci mais fajal sa bopp fekk bàyyiwuñ ko ci lii rek la ñuy dëkkee yàlla nañ ci yàlla musal jërëjëf merci beaucoup jërëjëf voilà merci beaucoup ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax comme ngeen ko euh, Euh, ku ne xam na ne Aziz ab sénégalais la ka nga xam ne aussi moom la ñu faat tamit keneen ki sénégalais la te mu nekk mbir moo xam ne du dëgg du yoon ndax dañoo nekk dëkk loi am na la mbir moo xam boo ko defee euh, daw fii ba kirikoro wala nga daw fii ak foo munti dem tamit yoon dina teg loxo te loolu moom moo dal ñi nga xam ñoom ñoo jëf-jëf yu ji mais nag am nañ euh, présomption d'innocence dafa dal di am jamono ji ay suspect dong lañ xamaguñu réellement est-ce que ñoom ñoo def ou pas mais la ñu xam ba wóor daal mooy que seen loxo génnul ci meurtre bi nga xam ne am na benn cas boo xam ne na benn cas bu euh, à la muy le cas de Nabou Leye parce que vu euh, relation bi nga xam ne amoon na ko ak Aziz Dabala euh, suñu gisee ñu ne moom loxoom de près ou de loin laawel na ci dafay bett askanu Sénégal dafay bett ñi nga xam ne euh, yëgoon nañ seen relation euh, depuis amaana cas boobu rek moo bett askan wi mais nag dinañ xool dinañ xaarandi ngir xam ba xam ana justice lan lay wax ci boobu lay ci boobu lay mbir mais lañ mën a jàpp daal mooy que dëkku yoon lañ nekk te tamit suñu takk dee yi am nañu ay moyens yoo xam ne yu am solo yoo xam ne képp kuñ bëgg a jàpp nañ la jàpp ndax boo xoolee def li ngay def ba pare daw dem Touba jàpp na yow mi làqatu nga foofu noonu du la jàpp jël ñiib jàpp la ñii nekk fii tam biir Ndakaaru ak ñi nga xam ne sax foo foogeewu woon nañ laa laalee mbir mi ñu teg leen loxo kon loolu day dañuy daal di félicité waat ñi nga xam ne suñu way takk der ci liggéey bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci biile mbir def nañ ko ci cas bi te wan nañ ne tamit cas bi ak yeneen cas yi aussi intéressé na leen askanu Sénégal moom moo leen intéressé di gën a waxaat rek ne ñi nga xam ne ñoom ñoo def jëf ñaawteef yi nii bés bu ñu xamee ne ñoom seen loxo mi ngi ci na yoon def liggéeyam parce que que justice soit faite pour Aziz Dabala pour Wali et ak tamit sénégalais yi nga xam ne jamono ji en sursis lañ nekk muy man di keneen ak keneen sursis lañ nekk parce que da xool dëkk boo xam ni mënoo tëdd xaaj guddi te déggoo ñu ne rey nañ déw démb ñu ngi dégg information que ni am na koo xam ne euh, faat nañ bakkanam ci Grand Yoff euh, baax ñëw aussi ndiki noonu ak fi nga xam moom mooy yëmbal benn braque ñuy fat nit ñi te après euh, au finish ñuy dem tëdd prison moo xam ci ay peine yoo xam ne euh, kenn du comprendre après ñuy génne mel luy ñaawalaate na juste daal def liggéeyam et askanu Sénégal nañu xam ne ne euh, Sénégal dëkku yoon la état de droit mi ngi fi démocratie comme ni mu fi nekkee noonu la fi état de droit aussi amee et que daal li ñuy ñaan rek mooy que na yoon def liggéeyam et ñu xawal ba xam mbir mi fan lay mujjee voilà yoon yoon buy def liggéeyam mhm. bu ñu koy bi dafay ñaawal xelu ñu boo xoolee euh, mooy bul wóolootu kenn. te bu ñu demee ba yegg foofu ci Sénégal euh, li nga xam ne moom la ñuy séentu parce que tamit bu ñu nee bul wóolooti loolu ça veut tout xam ne mu ñaaw la parce que tamit li xew ci mbir mi Nabou Leye dañoo jàpp ne rek da cee laale ñu ngi koy dégloom dégluwuñ ko ak lu ci mënti am loolu yoon rek moo ñu mën a wax naka la demee mais bu mu tax Sénégalais yi jël euh, maanaam li nga xam moo di xaritoo daal di koy banaliser jege ñaari ñu daal di koy banaliser ay bul wóolooti kenn bul bul ku même ki la gën a jege parce que tamit wax dëgg yàlla ku amul ku la jege nooy def ku amul ko la jege amul koo wóol nooy def tamit euh, ñi nga xam ñooy wax ci internet bi ñoom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a détourné xelu sénégalais parce que ñoom sax ca la ñu nekk mooy fexe ba xëccoo xibaar njëkk a joxe wala fexe ba nga nekk benn personne boo xam yow la ñuy gën a bàyyi xel alors que ñoom loolu du seen métier même bu fekkee ni sax journaliste nga am na loo xam ne tey amoo ci accès donc am na foo xam ne fa nga mën a yem raw ma lay wax nag yow nekkuloo journaliste nekkuloo taskatu xibaar duggoo ci tribunal bi demoo <laughs> demoo dik amoo lu ci lu bëree bëri donc tey jii bu ñu demee ba mën a euh, yóbbu débat bi ci ki jege mooy sa noonu tey dañuy yàqaat jikko yi te fi ñu toll rek ci Sénégal moo réconciliation bi nga xam ne ci la ñu nekk fexe ba wóolante fexe ba bëggante fexe ba jàppalante ci jàppalante boobu noonu euh, ci la ñu mën a sécuriser suñu bopp balaa police di ñëw balaa gendarme gendarmerie di ñëw balaa militaire di ñëw ñun ñoo war a mën a sécurité parce que tamit tey jii su ma nekkee yow euh, dinaa am lu bare lu ma lay servir mais tey ji bu ñu demee ba mën a jël sa xel def ci ne bul ma wóolu wala bul wóolu ajuma mi bu boobaa mbir dafay demee neneen te yaakaar naa ni li ñu war a mën a wax daal mooy fexe ba indiwaat nit ñi que ni drogue baaxul sexualité baaxul parce que moo la yóbbu ci yeneen xaalis bi nga xam ne moom la bëgg du ne baaxul mais am na foo xam ne fa la mën a mën a yóbboo ci sa àdduna voilà mais xam nga lu tax nga lu tax ñuy wax loolu mooy que comme ni nga waxee version yi moom bëri na loolu ku nekk mi ngi gën di wax ne mbir mi ni la demee mbir mi ni la exclusivité nag moom la ku nekk di wër et bay joxe information yoo xam ne yu wéeru la mais quant à ci euh, wàllum relation yi nga xam ne meeku nañ ko ndax boo seetloo ñi nga xam ne ñoo la ñu njortu ne ñoom ñoo ñenn ñi ay xaritam intime lañu muy le cas de bu Leye kon boo gisee ni sénégalais di wax ne man léegi dama ragal sa am xarit wala àndandoo c'est parce que cas yi nga xam ne ñu ngi koy dégg li olof Njaay di wax rek paaka bu lay reen ni sa waay moo koy jël jox ko sa noon peut-être loolu moo am ci biir cas bi parce que boo xoolee ñu ciy tudd ñëpp ay xaritu Aziz lañ mais nag san ne veut pas dire que ne ñëpp ñun ñoo ñoo ñoo maanaam ñoo yam. à part Nabou xamaatuñ keneen koo xam ne jege ñaa lay parce que boo xoolee yeneen si suspect yëpp tey jii mënoo xam kii la la personne. mais ñoom ñoo bokk mais ñoom ñoo bokk. parce que boo xoolee ñi nga xamante ne ñooy di influenceurs yi wax yenn mbiri uh-huh. la majorité ci ñoom euh, ils ne sont pas basés au Sénégal. ñoom ñu ngi bitim réew di wax lu leen neex. Euh, di jël à la place euh, ci ñi nga xamante ñoo di taskatu xibaar yi dañoo dem ba ci askan wi sax am na ñoo xamante ne euh, ñooñu lañ gën a jox crédibilité que ki ñi nga xamante ne ñoo leen war a jox des informations fiables au niveau du Sénégal man loolu day day nekk loo xamante ne day loo xamante ne man daf may xaw a jaaxal quoi vraiment parce que da ngay imaginer tey nga jox koo xamante ne crédibilité mu ngi par exemple euh, euh, France euh, tey def live sax di koy suivre ci ay personnes yow da ngay yéemu sax maanaam ñi ñi leen di suivre par exemple lan lañ war a jële ci ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ñu leen duppee ay influenceur man sax du ma leen duppee influenceur mooy ki nga xamante ne man yow mën ngaa jële dara ci moom Euh, koo xamante ne bu waxee tey euh, li muy wax day jëriñ askan bi mais koo xamante ne saa par exemple tey bu bu waxee rek nga dar sa gémmiñ awif tura jàmbur ak leneen rek lañ nekk ci àdduna bi ak euh, seen propre intérêt moom lañ nekk ci internet bi yow par exemple yow mi nga xamante ne yaay wër ay information di topp ñooñe da ngay dem ba un certain moment dañuy walbati sa xel sax ci li nga xamante ne moo di réalité yóbbu la ci beneen moom ah li yeneen liñ lay ay xarit amatuloo dugg na fi génn na fi man euh, je blâme ça parce que personnellement man je crois que euh, xarit am na ba tey man ama nit conviction que euh, loolu laa gëm man personnellement jikko yu yàqu moo am mais man je crois personnellement que xarit am na mu ngi mu am ba tey te mu ngi wóor ba tey nañuy moytu daal mais nañuy moytu bu baax a baax voilà nañuy moytu bu baax a baax a baax comme ni ma ko waxee tantôt rek amaana mbir mi ñi nga xam ne bien vrai que duñu ay xaritam dëggantaan mais ñoom ñoo bokk dëkk parce que ñu ngi ciy dégg ñu xam ne ginnaaw raay liñ dëkk euh, te ku ne xam ne ne amul voilà ñëwoon ñaan si ñaan tu merci beaucoup kon première kaddu la yu ki ñu njëkk a jàpp wax moom dane dama ko doon ñaan xam nga loolu tamit mën naa bañ a doon dëgg parce que lañ bañ ko jàppee loolu la njëkk a joxe ci ay kaddu man maa rey ñaar ñëpp dama ko ñaan paas joxuma ay borom ñaar tu lañ loolu rek c'est léger mais tey jii fii ak quelques wala fii ak tey ci kanam dina am yeneen coppite yoo parce que mbir bu amee rek ku ne da ngay fexe ba layal sa bopp mais est ce que la ngay lay boo buñ ca appuyé waatee du am beneen version parce que Nabou Leye su duggsee ak yeneen su suspect yi buy duggsee dina am ay coppite yoo xam dina ci am moo tax euh, la ñu njëkk a génnee loolu rek mooy la la nekk ca PV bu njëkk ba loolu moo njëkk génne PV bu njëkk bi lim ci déclaré ak li nga xam ne wax na ko ci deuxième bi j' espère que c' est diamétralement opposé dem na booy dugg ci euh, de mœurs je crois que loolu moom Euh, par respect de la mémoire des disparus euh, mën nañ cee bañ a yegg si quoi. Hmm. voilà kon. Mhm, mhm. crime yi bare na am na yeneen yu amaat mais bii euh, loolu aussi dina ci jouer lan moo tax mu passionné Sénégalais yi ñëpp di ci wax ba bitim réew ñëpp def ko seen mbiri bopp te crime yi bare na am na sax yeneen yu amaat yoo xamante ne bii bu dee ci wàllu sentiment rek parce que xale bu ñu yónni soow di mineur di jigéen ñu rey ka sànni ka ci maar yooyu yëpp am na fa mais terewul bii dafa ñëw éclipsé yooyu yëpp lan moo war a loo xam nga lu waral loolu mooy euh, ki nga xam ne moom la ñu faat muy Aziz. ndax ku ne Aziz Dabala ñëpp ràññee nañ ko bu baax a baax euh, ci la nga xam ne moom la doon yëngu ca la nga xam ne moom la doon am maanaam ci mbirum showbiz bi ak célébrité dañ doon jaxasoo ak ñoom kon moom kaawam dalay attrape maanaam dalay euh, dalay frappé moo tax am nañ ci bëri ñoo xam ne sa ñaam su ma tëddee du ma mën nalaw tellement que mbir yi image yi day mel ni que nañ ko teg sama kanam c'est parce que maanaam jëmmi ki nga xam ne moom la ñu ray la nam tolloon dayowoom merci beaucoup moo bàyyi noon dayowoom looloo tax euh, cas bi dafa interpellé sénégalais yu bëri def comme si ñoom ñëpp ay juge lañ ñoom ñëpp ay enquêteur lañ ñoom ñëpp ay procureur lañ c'est parce que dayoo bi nga xam ne Aziz Dabala amoon na ko ci inclure Nabou Leye moom moo tax euh, Euh, nit ñi gën a suivre pour xam lii fan lay mujje effectivement voilà effectivement parce que Nabou Leye ak Aziz ñoom ñaar dañoo nekkoon ñaar ñoo xam ne kenn mënu leen a leen daan suivre voilà parce que euh, bokk nañu ay théâtre bokk nañu clip ànd nañu maanaam foo gis Aziz euh, d'une part di nga gis nga xam ne moom mooy nabu Leye après bu ñu gisee ñu ne Aziz fat nañ ko ñu ne ñu ngi ciy tudd Nabou Leye laa dañ naan mais attends loolu nan la mu nekkee. léegi nag du coup Sénégalais ñëpp dañuy bàyyi seen xel pour xam est-ce que Nabou Leye mi ci cas bi la bokk ou pas loolu tamit tax na Sénégalais yëpp daal di investir bàyyi seen yite yëpp di topp li nga xam ne moom mooy mbir bi ngir xool ba xam Nabou laale na ci de près ou bien laal na ci de loin parce que moom da lay mais nag mën na ci laalee de loin léegi du coup pour élucider wala pour Sénégalais am lu leen leer ci mbir mi faw ñu koy topp H24 du jour au lendemain xam mbir mi fan lay mujjee loolu moo waral cas bi yitteel Sénégalais yu bëri le fait que ñu nga xam ne moom mooy Nabou Gueye trouvé ñu def ko li nga xam ne moom mooy suspect ba tey mu nekk fii ci palais de justice euh, bu Pikine euh, Guédiawaye léegi nag Sénégal dañuy xaar pour xam résultat yi euh, fan lay mujjee te loolu justice kese moo ko mën a leeral voilà looloo tax cas bi particulier dafa am mbir moo xam ne moo am parce que dafa am meurtre am assassinat parce que meurtre mën na jóge ci altercation mën na jóge ci loo xam ne sax tayuloo ko wala mu am foo xam ne fa la dooree ba yegg fa bokkul ak li nga xam moo di assassinat parce boo koy dégg maanaam loo waajal dem defi ji ko te loolu yëpp rek ay ay mbir la yoo xam ne ni euh, bu ci nekk rek euh, mënaguñu xam ban la ci mënuñu xam assassinat la wala mënuñu ko classé ci li nga xam moo di meurtre ajuma exactement fi mu toll nii j'espère que bu ñu demee bu boucler enquête bi euh, dinañ ci am lu ñu wóor parce que fi mu toll nii ay chef d'inculpation lañ leen di toppee fi mu toll nii mu nekk mbir moo xamante ne j'espère que Euh, dans l'avenir euh, dinañ xam euh, lan moo ci tukkee gis nañ par exemple li nga xamante ne moo di trois chefs d'inculpation su ma juumul moom lañ leen di toppee comme ni nga waxee nii je crois que dans l'avenir dinañ gën a xam lan moo war a tukkee ci enquête bi bu ko defee Sénégalais yi xam réellement qu'est-ce qui s'est passé fi nga xamante ne moo di technopole boo ñaari nit seen bakkan parce que tamit euh, d'après yenn kàddu yi ñuy dégg mi ngi door ci ab xeex boo xam ne amoon na ci moom ak ñeneen ñoo xam ne euh, dañoo daje woon ci benn ndaje xaw ma cant la xaw ma sabar lu mu ci mënti doon yaakaar naa fa la mbir ma tàmbalee ba ñu dal ko fay dóor 16 après ki nga xam moo dina bu lay nee moom moo ko indi fa nga xam moo di appartement wam daal di ko fay yu mujjee am en cours en cours de route la ko wàccee ñetti mbaar la ko wàccee wu ko tamit maanaam eh, ma ci jaaxal parce euh, ki nga xamante ne moo organisé woon cant yi man euh, dégg naa ci benn chaîne de télé mu démentir ne moom mosul organiser ay can. effectivement dégg naa ko. loolu tamit euh, dafa nekk loo xamante ne dafay xaw a semé du sama bopp. Euh, je crois que buñ euh, dégloo enquête bi rek à la fin dinañ xam réellement lan moo xew mais spéculation yi bëri na info yi trasaaroo ci internet bi bëri na mais nañ xaar sources yi nga xam ne ay sources fiables lañ. Euh, bu ñu génnee info bi dinañ xam euh, réellement mais man loolu dama ko jëlee ay peeset parce que ki nga xamante ne moo euh, moom lañ ne moo organisé woon cant yi moom gën na personnellement ne organisé wu. ak téléphone yi tamit bi nga xam ne Nabou Leye mi ngi ko doon wax ci guddi gi loolu tamit mbir la boo xam ne wax nañ ko. bi découvrir nañu corps bi euh, maanaam appartement bi appartement bi dañ ko fekk mu tëju kon amul woon infraction infraction amul woon parce que ku ñu rey ñu sonné fëgg donc il a fallu que ñu daj buntu bi man frère am bu mu bokkal ndey baay moo ma ko wax donc loolu bi ngeen ko déggee yow bi nga ko lan la la def yow personnellement tu te dis que kon ki ko reyoon soit c'est un gars qui est familier dafa amoon caabi ji wala lan parce que gisuñu ñu dajji buntu bi. voilà moom laa doon wax kii ma ne ko euh, ki nga xam ne moom moo ko faat bu dul tamit ki nga xam ne mooy xaritam dëggantaan xam na ko bu baax a baax ndax boo xoolee fat nit ki ba pare tëj ko euh, maanaam tëj bunt bi euh, à clé ba pare dem sa yoon ba il a fallu comme ni nga ko waxee moom na bu la yàgg mag ji magu Aziz pour ñu dajj buntu bi laa dalay firndeel que ni ki nga xam ne moom moo def jëf jooju noonu xamoon na bu baax a baax Aziz xamoon na bu baax a baax la nga xam ne moom moo nekk intention parce que mënuma concevoir d'après propos yi nga xam ne euh, njëkk na ko wax may ma paas wala may ma xaalis dong jaru indaale paaka kon paaka yi boo ko indaalee kon c'est prémédité waajoon nga bu baax a baax la nga xam ne euh, moom nga bëgg a def kon moo lay firndeel que ne ki nga xam ne moo ko def xamoon na acte ndax peut euh, jubluwaay bi la am déet nekkuloon jubluwaay bi l'essentiel mooy que dem di euh, ñaani xaalis ba yóbbaale paaka man je crois que ne waajoon na ko bu baax a baax a baax et que itamit Aziz xam na bu baax ki nga xam ne moom moo ko faat amaana euh, boo xasee ba génn àddina génn nga àddina mënatoo mënatoo def dara mais tey bu Aziz ñëwoon dina xam exactement kan moo ko def jëf joojule te man li ma leer ba leer mooy ki ko def euh, ki nga xam ne moom moo ko xam bu baax a baax min na appartement bi xam na le coins et les recoins ndax mënu ma concevoir nga rey nit ki ba pare tëjaat ko ci biir euh, sangu ko dem sa yoon kon moom moo lay wan ne miin nga bu baax a baax fa nga xam ne fa nga defee crime bi voilà ndax beaucoup merci personne extérieure lañ ñoo xamante ni dañuy jóge feneen ñëw di def liggéey bi nga xamante ni journaliste daf ko war a def alors que dañoo am peut-être ay éléments yu bëri yoo xamante ni c'est pas encore réuni donc su fekkee c'est pas encore réuni ngay wax loo xamante ni maîtriser woo ko mën nga induire ñi nga xamante ni xamuñu en erreur voilà ñi nga xamante ni xamuñu mën nga leen induire en erreur par rapport ak situation bi nga xamante ni yow moom ngay décrire peut-être xamoo ci lu bari donc loolu déjà euh, c'est c'est c'est c'est c'est un pas boo xamante ni liggéey bu ama am am solo la boo xamante ni ñun war nañ ko mën a def en tant que journaliste war nañ ko mën a def en tant que aussi ñoo xamante ni peut-être déjà wax nañ la béyaabaa yi nga xamante ni moom mooy métier bi li mu laaj nga war ko mën a respecter teg ko ci yoon donc damay damay remercier encore une fois di leen di masawu journaliste yëpp di leen wax ne rek bon peut-être affaire bi ñun ak nu ñu mënti toll en tant que journaliste technicien des médias ñu bañ ci def benn déduction boo xamante ni c'est euh, précipité. par rapport ak situation bi fi mu toll nii. waaye ni may wax ak yow am na résultat bu ma for léegi. Mhm. ci damay bañ a gaawtu. waaye xam naa ne am na résultat bu bu wàcc léegi ni yëf yi féete na boor. Mhm. damay bàyyi nag waaw fu leer laa ko damay bàyyi tuuti ci kanam tuuti ma ma ma ma bërësol fësal loolu. waaye day ma ni day ma ni am na ni yëf yi féete na boor. ndax libération la ndax mandat dépôt la. dans cinq minutes naa leen ko wax ndax Dakar Buzz mooy jinne ji. ce qui ce qui est clair mooy gis nga nous avons de très bons enquêteurs. enquêteurs yu taxaw yoo xamante ni ils maîtrisent leur leur leur domaine. donc tey am na lu bëri loo xamante ni tey buñ ko comme yow li nga wax nii par exemple que mbir yi féete na boor mais lu possible la parce que déjà euh, pratiquement enquête bi. dafa avancé de trop avancé na parce que déjà démb ñu ngi interpellé une septième personne un septième suspect koo xamante ni déjà jàpp nañ ni ci mbir mi moom la bokk donc déjà euh, fu fu fu Euh, Fadel li mu wax nii lu lu plausible la loo xamante ni war nañ ci mën a duut baaram parce que déjà affaire yi avancé na trop te euh, présentement ki nga xamante ni moom moo leen di déglu éléments yëpp dañ koy teg ci loxoom. voilà voilà donc encore une fois may remercier Fadel may remercier di la di la di la jaajëfal xam nga yow moom vraiment kenn nga ci euh, ci ci ci milieu bi parce que li ngay def teg nga ko ci xam-xam. teg nga ko ci professionnalisme teg nga ko aussi ci ci dal. parce que non non ñooy taataanandoo en tout di remercier ñëpp di leen jaajëfal di leen wax aussi masa coono parce que liggéey bi ñoo ko ñoo bokkandoo li ñuy subir yaa ngeen jëf. voilà comme niñ ko déggee noonu ni ko Fadel euh, waxee que ne daal am na info boo xam ne euh, jot na ko amaana nag mënagul dévoiler gum la nga xam ne jot na ko mais daal lam ca mën a wax rek mooy que euh, libération la am mandat de dépôt la trois points de suspension bi en point d'interrogation ci kanam tuuti yàgg dara dinañu daal di xam mais daal lañ ci mën a jàpp rek mooy que mbir mi daal xam naa ne tey dina leer ba xam càkkuteef bi parquet def que ne nañ leen dóor ab mandat de dépôt ba pare ubbi ab information judiciaire ba xam loolu la doyen des juges bi di appliqué am déet ndax ku ne xam ne ne parquet moom dafay chargé rek a chaque fois waaye nag juge bi moom mooy xool la nga xam ne rek moom lay daal def ci boobu lee mbir ci kanam tuuti ñu xoolandi rek ba xam mbir moom ilee ana fan lay daal di euh, mujjee ci fàttali yéen ñi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ñu ngi fii ci palais de justice de Pikine a euh, Guédiawaye lépp rek ngir euh, toppal leen Aziz Dabala ak ki nga xam ne moom mooy euh, waay lii ñoom ñaar ñoo jëlee rek ñu faat leen ci seen appartement foofu noonu euh, ca euh, technopole Pikine technopole li ni mel nag ginnaaw bu amee ba léegi sénégalais yi toogatuñu defatuñu dara ñoom daal ñu ngay xëy ci biir mbir ngir rek mbir mi daal di leer ngir ñu mën a xam ana ñen rek ñoo daal di jëf jëf ju ñaaw ji lee xam naa ne ci kanam tuuti di dina daal di leer waaye tamit mbir mi ñu ngi xamal que ne daal nañ septième suspect bi ki euh, démb la amee te waajuram bu góor sax moom moo ko daal di euh, yóbbu euh, jébbal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu way takk der yi parce que daal xam ne ne ginnaaw rek ba ñu daal di bañ joxe identité wu Fallou Diop moom ile waajur bi nag xam ne doomam la ñuy daal di wax ca la jëlee doomam nag jébbal ko ñi nga xam ne rek ñoom ñooy suñu way takk der yi maanaam daal dafa daal di boole doomam li ni mel moom moo tax nag ñu daal di am septième suspect ki nga xam ne mooy Mamadou Lamine Euh, Diaw ak euh, Ousseynou Assane ak euh, ki nga xam ne moom mooy monsieur Thiaw Diaw autant pour moi ak ki nga xam ne rek moom may Fallou Diop ak Nabou Lay ñoom ñooñu lee nag la ñu daal di teg loxo ba tax na rek ñu ngi fii ci palais de justice ñu daal di xam rek boobu le mbir ana rek fan lay daal di mujjee solution TV ñu ngi leen kay toppal bu baax a baax yéen a ngi gis noonu am na ñu taxaw. ci buntu palais de justice bi euh, di xaarandi ba xam rek ana lan ban résultat mooy daal di euh, jukkee ci biir suñu force de l'ordre aussi dal di nañ déployer ay euh, moyens lépp rek ngir daal di am sécurité fii ci palais de justice taskatu xibaar yi tamit comme d'habitude rek ñoom ñu ngi fii ngir relater ngir relayer li nga xam ne rek moom mooy euh, les informations ba tax na rek euh, ñu ngi leen ñu ngi nii euh, ci solution TV di jaajëfal képp koo xam ne rek yéen ñuy bàyyi xel bu baax a baax jàppale ne bii leen mbir dara rek du leen ci rëcc ñuy xaarandi ndax sax ci information bi nga xam jot na ci ñu ñuy xam ne que ne suspect yi ñu ngi fii depuis cinq heures du matin maanaam daal. ñoom euh, fajax euh, teel rek lañ fii daal di ñëw avant sax euh, maanaam mbedd yi di am nit ñoom dugg nañu ci biir lépp rek seen ay sécurité aussi ba léegi lépp rek ngir itamit ñu mën a dugg si ci biir ci jàmm ak salaam waaye tamit ñu mën a rek am li nga xam ne rek moom mooy liberté dugg nank xam naa loolu rek lañ ci daal di jublu moo tax daal depuis 5 heures du matin ba léegi rek ñoom ñu ngi ci biir ñu ngi nii nag taxaw temb rek di xaar ba xam rek ana ban résultat moom mooy jukkee ci biir euh, palais de la euh, justice ci biirum meurtre Aziz Dabala ak ki nga xam ne moom mooy euh, Wally xam naa ne daal mbir yi dina leer loolu ndax ginnaaw rek ba ñi jotee ci li nga xam mooy boobu le dossier brigade bu euh, Guédiawaye bañ jotee ci li nga xam moom mooy boobu leen mbir dañ ko daal di euh, jébbal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, DIC ñoom nag xanañ lool lool loolu ci yile mbir ba tax na rek ginnaaw bañ leen ko joxee ci mardi mercredi jeudi rek ci lañ commencé ay arrestation jàpp vendredi samedi ba ndiki démb ñu daal di amaat keneen boo xam ne jàpp nañ ko lépp rek ngir firndeel fii firndeel euh, ken ni euh, la nga xam ni euh, daal dinañ koy am ba tax na rek ñu leen di toppal mbir mi ne bu baax a baax. voilà mi noonu nag ñu daal di am ñu daal rek xool am ab xibaar boo xam ne rek moom la moo daal di jukkee foofile. tey mooy ñoom ñëpp ñu ci ah ah Seydou. voilà ñu daal di leen ñu daal di déglu euh, Fader rek mu daal di. muy oto bu mag mag bi boo xoolee liy jiitu si oto bi oto bu police bu ndaw moom moo jiitu si kanam am na beneen boo xam ne moom mooy topp si ginnaaw kon ñu xaar moom mooy tout à fait nee xaw ma kan rakkam la si moom précisé wul bu baax kenn rakkam la ci moom ndax lam ndabalee la ko baax mais amoon a jox mais après xam naa ni ko moom xew mais daal euh, dafa mel ne ko wax ci leer na mooy mhm. li nga xamante moom mooy les sept régions mooy tuddee actuellement da nga ne nga xam ne moom mooy suuf mandat ga démb waaw d'accord ñu am réaction waaye bon ah, euh, ni ñu ko waxee xam naa ne yéen ñi nga xam ne yéen ay suivre nañ ñu may ñu patienter un peu euh, ñu patienter un peu euh, pour am euh, les vraies informations est-ce que mandat de dépôt la ou pas ngeen topp ñu rek ñu daal di leen di dégtal li nga xam ne rek moom mooy xibaar yu wér te comme ni ñu koy defee rek les vraies informations lañu bëgg di leen ko daal di dégtal ba xam mandat de dépôt moo am ci mbir mi wala lan la exactement l'essentiel topp leen ñu bu baax a baax Euh, ci euh, solution euh, TV yéen a ngi gis bu baax a baax réaction yi foofile instant bi nag bëgg nañoo xam les vraies si mandat de dépôt la ou voilà sama caméraman voilà mbokku internaute voilà mbokk internet solution TV ñu ngi leen koy toppal bëgg nañoo xam nag. voilà ñu ngi fii ci effectivement. voilà coow moo xaw a am un rek euh, fii ci buntu euh, palais de justice euh, coow li nag lan moo ko waral mooy waa ji nga xam ne bëggoon na ñëw wax ak taskatu xibaar yi malheureusement nag mujjut wax ak ñoom amaana loolu moo indi bii xëccoo fii bi xëccoo mais rek ñu daal di leen di toppal information yu wér yi ndogal nag moom moo indi altercation bi moo am verdict bokkut ak nga xamante ne moom mooy coowu labule bi mooy sànq li ñu doon ci moom ba léegi rek ñu toppal euh, bi lee xibaar gi xam réellement ana lan rek moo dal di xew voilà demoon rek mais daw da bëggoon bëri na waaye lu si mënti am liñ leen mën a wax moo di mandat de dépôt googee uh, bu nekkee am na ndaxte dafa am procès boo xam ne moom la dig defoon Euh, procès verbal bi da si bokkoon soxna si nga xam ne moo di euh, Nabou Leye ndaxte ñu bëri ñoo ngi doon wax yàlla bum ca bokk waaye procès verbal bi benn lam ca génnee lañ ca jàpp mooy la ñu doon jàppee ne xarit dafa doxoon si diggante da Dabala ak Nabou li procès verbal bi génnee jàppal ne nabulay euh, moom ak Aziz ñoom ñaar ñooñee ay dañ doon génn beneen ki nga xam ne moo di nabulay jàppal ne dik da koo déglu ñaari yoon ci déglu yooyee dañ koo déglu mais benn bi dañoo gëmloo ne Nabou Leye yow moomee bokkoo ca bokkoo ca euh, li ñu nekk nekk bokkoo si dafa am leneen lu mu firndeel li mu firndeel mooy Nabou dañ ko bàyyi mu génn mu dem dik bi mu bëggee teg loxo ñooñee dañoo bàyyi Nabou Leye mu dem Nabou bi mu demee jàppal ne dañ ko doon déglu si loolee euh, ñi nga xam ne jàpp nañ leen nakate moom ñoo moom moomee da doon communiqué ñooñu looloo tax ñu jàpp leen beneen bi li nga xam ne moom lañ ca jàpp te ñu mën leen ko wax fi nga xam ne fa la ñu toll mooy mandat de dépôt day tegu ca ñoom enquête ba fam ca tàmbalee ba fam ca jeex moo di Nabou Leye moo moomee dafa bokkoon si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñee ñoo tegg li nga xam ne moo di mbir bi beneen bi mooy bi ñu koy déglu ay kàddoom amul fenn foo xam ne méngoo na beneen bi mooy bi ñu bëggee jàpp ñoo ñooñee si Nabou Leye lañ ko jaarale ndaxte dañ koo déglu deux fois loo ne ko moom moomee bokku ca biñ ko bawee mu dem ca la am ñu bëri nag ñoo ngi wax si mbir bi waaye lu ci mënti am mooy si wàllu mandat de dépôt bi fi ñu toll nii bu nekkee ne loolee dafa tegu si ñoom jàppal ne lu mu gàtt gàtt dinañ dem ñu waral leen benn juge boo xam ne moom moomee mooy àtte li nga xam ne moo di mbir mi. lañ leen di toppee nag dafa bëri wàllum vol da see bokk waaye nag ay nit yu booloo ñoo xam ne dañoo assassiné nit waaye nag beneen bi mooy koppar gi nga xam ne retiré nañ ko beneen bi si xale bi nga xam ne moom lañ tuddee fàllu. te waajuram andi ko kooke jàppale ne caméra de surveillance moom si boppam euh, caméra googee da ko firndeel woon ko bi ñu jël xaalis boobu si la bokk waaye comme afro la defoon dafa wottu ginnaaw gi nga xam ne waajuram def na li nga xam ne moo di yëfi responsable moom moo moomee moo jël ki nga xam ne moo di doomam ndaxte da doon bañ famille Aziz dabalaa fay si doomam mu andi ko fi nga xam ne moo di dig euh, fi ñu toll nii li ñu leen mën a wax moo di juróom-ñaari personnes yi moo di juróom benn góor ñi ak ki nga xam ne moo di Nabou Leye mandat de dépôt bi euh, li ñu amagum si information ndaxte am na ñetti oto yi nga xam ne génn na ñoom ñoo ñee ca la bokk te mbir bi nag bu nekkee ne dafa toll foofee jàppal ne mbir yi euh, jàppal ne du yomb leneen li nga xam ne moom lañ ca mën a wax fii si tribunal bi nga xam ne moo di Pikine ak Guédiawaye procureur bi ca ne ku bees la di ko démb bi leen dégloo moom li mu demandé rek du leen lu dul ne ñooñu ñu mettre leen mandat de dépôt jàppale ne fi ñu toll ni instruction la mbir mi dem te mbir mi dañ koy enquête ba xam fan la mënti yem waaye lu si mënti am jàpp leen am la am na leneen lu nekk si biir ndaxte bu ñu dégloo waxtaan bi wala li nga xam ne PV bi moom la génne da ngeen ni jàpp ne Nabou Leye moom ak ñamu àndal l'objectif nekkul woon ñu rey ki nga xam ne moo di Aziz Dabala ndaxte yaa angle sur roche maanaam am na l'objectif lu taxoon am ndaxte liñ nañ ñoom ñaar ñooñee ay xarit lañ woon ñoom ñaar ñoo ñëwee doom ak papa la or que ce n'est pas vrai Nabou Leye da doon génn ki nga xam ne moo di Aziz Dabala maintenant nag li ci xew mooy lii bépp sénégalais doon demandé mooy ndax Nabou Leye dina ci laaleem du ci laale enquête bi wala ñu téye Nabou Leye lan moo waraloon lii dina am leneen lu ciy feeñ ndaxte du xaalis bi. ndaxte l'objectif dëgg-dëgg dañ ko doon xoxatal li tax am na loo xam ne li ñu jàpp li PV bi génne lu ñu bëggoon tere ki nga xam ne moo di Aziz Dabala loolee moo di réalité bi nit ku génn nag mënoo wax ci moom ci ginnaawam lu ñaaw walla leneen waaye lu si mënti am jàppal ni ñi nga xam ne daal ñoom lañu teg loxo euh, fi ñu toll nii bu ñu xefulee seen mbir dina compliqué ndaxte charge yi nga xam ne teg nañ ko si ñoom loolu daal lañ leen mën mënoon jox comme information euh, depuis le matin ñoo ngi fii askan wi ñu bari ñoo ngi doon suivre lii mooy liñ leen mën a jox moo di Nabou Leye moom ak ñamu àndal fi ñu toll nii bu ñu sukkandikoo si procureur ba mandat de dépôt maanaam fi ñu toll nii ñoom ñoo ñooy présumé maanaam ñoom la ñu njort ne ñoo def mbir mi mbir mi nag mën na tàmbali léegi mais xamuñu kan lay jeex tant que atteew ñu leen ba mu jeex tant que atteew leen ba daan leen tant que ñoom ñooñee defuñu li nga xam ne moo di appel ba ar maanaam daan définitif amul dañ leen di jàppee comme ay présumé du ñun ñuy jugé waaye li ñu leen mën a wax mooy li procureur jàpp li enquêteurs yi jàpp li waa dig jàpp ñoom la ñu njort ne ñoom ñoo ñee ñoo nekk ci mbir yi beneen bi mooy Nabou Leye bi nit yi doon wax ndaxte ni mu meloon nag moom ni mu xaritoo nag moom léegi nag leen mooy ci am bu nekk ne Nabou majeure partie les sénégalais bëgguñu woon mu bokk si mais bu si bokkee dorénavant si réew mi di Sénégal jàppal ne mbirum amitié niri nit yi dinañ si amati maanaam mbégteel dina am ndaxte sénégalais kenn bokk si woon jërë ngeen jëf. l'objectif aussi la presse lenn moo nekkoon suñu liggéey ñëw joxe ay information beneen bi mooy fii enquête bi yem fa lañ ca mën a yem. foofu lañ ca mën a yemagum jërëjëf loolu lañ ci mën jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. voilà merci beaucoup euh, mbokk internet solution TV dégg ngeen bu baax a baax la nga xam ne rek euh, daal dina koy euh, addu <laughs> yow rek daal dina koy addu jëm ca boobile mbir maanaam daal ci gàttal kon bu buñ ko résumé rek mooy que ki nga xam ni rek moom mooy nabu laal la bu baax a baax ci mbirum meurtre ki nga xam ne rek moom mooy Aziz Dabala voilà ba léegi rek ñu daal di dem jëli li nga xam ne rek moom mooy ay information réaction la ñuy dem jëli ji ñi ngi xam rek ana mbir moom i lee fan lay mujjee li mu def Aziz Dabala metti na trop metti na ba ci kanamu yàlla dëgg yàlla metti na moom metti na trop metti na ba ci kanamu yàlla xanaa di jàll yaayam rek dëgg ko ma mastawu dëgg yàlla la wax ñi nga xam jàpp ne ñoo def ñoo la ñoo ñoo ñoo def jëf ñooñu noonu waaw man de bu ma président Diomaye déggaloo dañ leen teg fii taal dañ leen teg taal leen parce que ñaari bakkan la ñu rey benn sax ëpp na mas sama ñaar dafa metti gara ah xaalis boo xamante ni tekki woo yoo xaalis boo xamante ni daal mooy loolu daal mooy loolu métti na daal métti na métti na ba ci kanamu yàlla ah depuis démb ba léegi sax ñu ngi rey ba léegi ñu ngi dafa métti dafa métti soxna si war na yàlla dafa métti dafa métti métti na trop ok maa ngi maa ngi leen waaw. voilà moom tamit wax na euh, réaction voilà. ñu daal di ne toppal rek li nga xam ne rek moom mooy intervention yi ngi xam rek exactement ana rek lan moo nekk xalaatu ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi daal di euh, nekk. voilà ba léegi rek ñu toppal leen ko bu baax a baax a baax voilà. Sall awa tubaab xam nga lañ may wax mu ni ma xoolal awa tubaab boobu tur bu sucré di ma wax yooyu noonu di kaf man di foo man di réew ak man ba pare baax aka moo baax Aziz daf may conseillé te bañ xamante yàggul loolu moom ma gën a métti billaahi rey bi dafa maa métti moo taxoon ma ñëw fii xool naka la naka la wànnante di mu jóg di mu jóg euh, ba gëtëm parce que Aziz liñ ko def dafa ñaaw lii même buñ ko xamul woon sax dafa ñaaw suñu justice Sénégal dañ leen war a dañ leen di ñaan ñu def peine de la mort parce que ku rey dañ laa war a rey gis nga ñii dañ leen war a jël di leen rey ba ñu dee wala ñu exposé leen ci presse bi ñii lii lañ war a def nii lañ war a def wóor na alxuraan yi li métti na bu lay moom muy mel na dëmm dama yàlla baal yàq na deru jigéen ñi barke alxuraan man suma sañoon nekk Nguuna Ngaana. mais yoon mu ngi def liggéeyam. waaw mais dina ko def am nañ présomption d'innocence maanaam tant yoon leeral rek xamaguñu kan moo def euh, tey est-ce que yow euh, jàppoo ne soutien bi da ngeen ko war a organiser pour ñu gën a mën a xam euh, mbir yi nu mu demee. mais ma wax la dara. sëñ bi gisa man duñ ma fekk kër ma saa ma jël de ndax dañ maa deful dara ba pare suspecte wuñ ma yaa ngi may dégg Nabou Leye da daan fréquenté ci ay man ba may dem subaar soirée tar ba mbay yu may dem yëpp Nabou Leye à côté lay taxaw di xaar Aziz Dabala barke alxuraani karim man duma man na dama leen man man du wax loo xamante ne du ma du nekkul ci man déggoo ma de ay fan du ma ko wax koo foo gisee Aziz Dabala gis euh, Nabou Leye noonu ngay defee di waaye yéen tamit ñun fan lañ jëm xarit man de man awa damaa bàyyi xarit man dama ko bàyyi woon bu yàgg sax dama ko bàyyi parce que lii ay dabala moom man xam naa ne instant ba muy gaañu li ko gën a rey jamate bi rey reyu ko de mais Nabou Leye bu mu mujjee gis looloo ko rey barke Seydina Mouhamed lii abus de confiance dëgg la mais yéen ñi nekk si milieu bi coow bëri na seen milieu tey jii yan jàngat ngeen mën a tiire par man nekkuma si benn milieu sëñ bi parce que ma daf may am envie rek envie rek laay am dem fecc ji ñëwaat tëgg sama rok man fi ma dëkk sax dafa sori kër ma saar laa dëkk ngi dégg te leer laa ñaari fii laa kon xam ne kon nekk ma si ay maa ngi sama sama ñaari doom laa am yaa ngi dégg kon nekk ma si benn milieu mais da lay da ngay nekk instant boo xam da ngay bëgg soulager wu parce que stress bi dafa bari lii rek stress la man instant bi su may bee sama buntu sax barki yàlla gis su may sangu su ma sël sël moo nii damay gaaw chasse bi pour kii bi ndax damay ragal damay bañ ñu xoj ma loolu lay may xa yaakaar dañ may xoj wóor na alxuraan dëkk bi wóoratul daal merci beaucoup juste awa laa tudd awa ok merci dinaa métti ni dañ laa war a rey ah, voilà ñu ngi noonu nag dégg ngeen bu baax a baax moom nag li ko gën a euh, métti rek ci euh, mbir mi mooy ki nga xam ne moom mooy Nabou Leye ci daal di euh, tuddu voilà ñu daal di démarrer rek jëlaat quelques interventions voilà ci mbir mi. ci suñu ñu naan tey jii ñun ñoo koy def en tant que africain en tant que jullit ndax bu njëkk ñun dañ ko daan dégg ci réewu ñag yi mais rafetul tey ñu koy dégg tey jii ci réew mi nga xam ne réew mu baax la vraiment waaw ñu ci tudd jigéen euh, euh, waaw ñun nag loolu moo ñi gën a metti nag loolu moo ñu gën a metti tamit surtout surtout tamit ak jur bi jur bi ndax ñun dañoo jur xam nga surtout kaw xam ne ni sa xarit la war nga koo yéene tey ju lu man a tant que man tey parce que am na kenn koo xam ne dégg naa ko parce que nee euh, xam ne moom ngay taxawee ci naw man ma xam ni Aziz dañ ko war a rey man dama war a mën a jàppale Aziz vraiment waaw jàppale ko te yàlla rek tax ngir jëmi Seydina Mouhamed mais ni mu mel nii ñaaw na trop vraiment surtout koo xam ne tamit ay xaritam nga xaritam nga te aussi tamit li ma gën a metti nag li frère am taxaw naan bu ko ci pression boobu tey ñëw ci moom day nekk loo xam ne nii lu metti la daal xam nga day nekkaat dëj boo xam ne dëj bu beesaat la vraiment te ñun bu doon suñu sago ñu ñëpp ay jigéen lañu mais lii du dal ci kawam daal vraiment waaw vraiment metti na trop ok merci jërëjëf beaucoup voilà mi ngi noonu nag koy jaajëfal baax a baax a baax voilà ñu dem ba léegi rek jëli quelques intervention euh, ci euh, mbir euh, mile voilà intervention. non parce que ay paaka ay jaasi ay. non parce que bu non ay bu xasee bu jóg. yéen jël jaaykatu ñëpp dañuy yor paaka. nit mu la taw de jëm jëli fee paaka ñëw. mais est-ce que paaka war nañ ko jaay ca marché ba wala ci bitik. non marché daa am ko war a jaayee. mas paaka moom daa am ko war a jaayee arme moom daa am fu ñu ko war a jaayee. ba pare nekkul boo xam ne ku ñëw rek nga jaay ko da nga ko war a xam peut-être. Ah, waaw da ko war a xam. waaye gan bu ñëw wala yore ay cicatrice nga jaay ko paaka. jaay ko am na ñoo xam ne dañuy correct ñoo jënd paaka kooku gën a saay-saay nit ki mën na am sika accident wala yeneen ak yeneen comme naa la. nit bu ko bu ko si comportement quoi am na ñoo xam ne ñoo la dàq tëj ñoo la gën a jantal waaye lu nekk seen xel bi mu laa yob ne kii moo def leneen doo ko gëm ne kii moo sàcc doo ko gëm ay dugg si ay oto wala tataay ku sant loolu di taxaw ñu mu toll doo ko fooge ah, ñun mécanicien yi ñun lu dugg si oto ñun suñu tonni dañuy daw te soxla na alalu jàmbur. mais est-ce que du crise économique financière sociale bi nga xamante ne bii nit ñi ils sont maanaam amuloo dépense wala bokk yooyu yëpp est-ce que du yokk liy tàngaloo xolu nit ñi ba euh, lañ la daan def ñaar nga koy muñ bu la defee benn nga kalaatee xuloo yi bare bagaar yi bare gis nañ ko ci oto yeeg yooyu. non loolu yëpp si yarin bi la quoi man. comprendre ma la nit ki boo gëmee sa bopp lu toll la yàlla jox di chaque jour bàyyi rey nag a say ba xëyee rek dama njàkkante ko comme say morom nit boo tooyloo rek dala du la jaaxal sa àdduna nit boo tooyloo gëm sa bopp dala du la jaaxal doomu aadama xam nga jalousie dafa am na mu say bañ a ñàkk dafay day am da lay nekk secteur boo xam ne nii la nekk say nawle comprendre yàlla lay liggéey yàlla may la teraanga waaw am na ñoo xam ne ñëpp du la mën a bëgg am na ñoo xam ne du la xool am na ñoo xam la a gasal kam moo waral dal booy yi rek jalousie la pikin laa juddoo laa yoroo parce que toll naa may benn man mi sama ñëw moom man toll naa benn dimension boo xam ne bëgg bëgg am lu baax parce que ma bët ku doon ànd ay nu bolo di dem yëpp yaa ngi wax waxu Pikine boobu ba léegi lan lay wàññi ci image Pikine lu mel nii non yàq dara Pikine dama non metti man li may dégg Pikine mi am na pigin dama métti parce que ñun Pikine bu njëkk ba ñu lu xamoon Pikine xàccandoo dóorandoo ñu leneen xamoon Pikine jamonoy Pikine dëgg xàccandoo dóorandoo leneen xamoon alay Pikine bu demee ba changement ay ay ay cas di am comprendre la. Mhm. génération yeneen génération yi di ñëw tam ay wàllu wàll si ñëw di dugg si. parce que Pikine di dëgg dëgg dëgg gel wala yëpp nekkatuñu Pikine mhm. benn si man nekkatuma Pikine man samay jaw samay doom yëpp fii laa ko masa ginnaaw ka ñu abu cubalo wala takay soxna ñii ñu incriminé tey amul kenn ko ci aw xam fa laa nekk léegi maa ne Petit Mbaaw damaa loose dem jóge Pikine gent Pikine dem Petit Mbaaw gën a boo fi nekkee boo bëggee avancé am na benn esprit boo xam ne boo ko màggaalee boo méttee noonu lay màggatee da lay dem ba dugal si yeneen détails yi mooy détails yi lay dégg nii yëpp ay agressé salu si nangam nangam léegi nag da lay jéem a boo buggee yow avancé la génnal Pikine fa la juddoo fa la yàlla génn dama xàll feneen fa xam ne kenn xamu la léegi xëy wàcc di dugub yàlla dina la may dina am cerveau tranquille dina liggéey te loolu liggéey dina dina fenseer dina dina ko mën a jariñu waaw boo juddoo Pikine nii màgg fi yore fi sa xar yi la daan ànd avant am ñoo xam ne am jabar ñii amul jabar ñii yorunu yow boo yoree xama la karang karang da am bët booy xoolee wala xama rek xel dafa ñaaw te dafa sew si sa daa bëri doole dina xoolal Pikine génération yi ma fi bàyyoon ba léegi ni ñu ma am teewal sax amuñu ko lu ko war a da saa su ne dama la ko boo leen gëm leen yàlla liñ génn Pikine ba léegi métti na trop ne métti na il faut juddoo foo yoroo la jékki-jékki bàyyi ko dem sa yoon day métti il faut la gëm ko génne la saa benn philosophie comme naan voilà. voilà merci. Euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. yéen ñi nga xam ne rek yéen ñu bàyyi xel sur euh, Solution euh, TV ñu toppal leen bu baax a baax li nga xam ne rek moom mooy xibaar yi nga xam ne rek moom moo fi euh, wàcc ginnaaw rek euh, ba set suspect yi ñu daal di am ab tour de parc ñu woon fii ci palais de justice bu Pikine nag Géejawaay léegi nag ñu daal di euh, nemmeeku après ñu daal di leen di génne ñetti oto police génn ànd ak ñoom benn oto administration pénitentiaire daal di toftal sërëm daal dinañoo jaar si beneen porte bi laxkatu dem euh, ñibbi yoon bi li Canada bi lañ jër ngir ñibbi donc na loolu day wane ne rek euh, xa amaana mbir mi nu mu demee neexu leen ba bëgg ñoo prononcé wu waaye ñun ñi fi toog taskatu xibaar yi dinañ jéem a def suñ kém talaay kattan ba lépp li nga xamante ne rek moom moo si tukkee ko comme information ñu daal leen koy jox waaye mandat de dépôt moom am na donc li nga xamante ne mooy enquête bi dafay durer lu yàgg-yàgg ngir balaa ñoo leeral li nga xam mooy mbirum assassin mu nekk leeral am solo yi nga xam ne rek daal dinay am fii ci euh, tribunal palais de justice bu euh, Pikine wala nga xam ne rek am nañ ko euh, comme xibaar jamono ji rek mën nañoo daal di euh, nemmeeku ko ne daal euh, seen ay mbir euh, ma ngay wéy di continuer ndax mandat de dépôt leen daal di dóor comme ni ko parquet bi sakkuwee woon que ne leen door daal mandat de dépôt ñoom suspect yëpp ba léegi rek boobu leen mbir jeex na bi leen mu ngay wëy di euh, continuer bu baax a baax l' essentiel mooy ka enquête bi daal moom euh, ma ngay woy di continuer mandat dépôt daal doot nañu comme ni ko euh, procureur de la république sàkkuwee woon que ne ñoom sept suspect yëpp leen nañu daal yóbbu ca kaso ba li ni mel nag la ñu daal di nemmeeku ndiki tay ba léegi rek ñu daal di jëli quelques interventions yi nga xam ne rek dinañ ko daal di am ginnaaw rek ba bii li résultat daal di génne fii nii ci palais de justice may xolu muñ di ñaanal yàlla nag Aziz ba mu tëdd yàlla na koo gënal fa mu jóge ci barke yonent bi sallallahu alayhi man daal loolu rek laa koy ñaan waaw waaw ñun nag loolu moo ñu loolu moo ñu gën a metti vraiment loolu moo ñu loolu moo ñu gën a metti parce que ñun ñëpp ay jigéen lañu tamit dañoo jur surtout bu dul dara tamit moom am na doom parce que tamit tey kenn ñaanu yàlla naan bis na damay takk doomu diw te nit danga war a liggéey sa àddina loo xam ne ni bu ëllëgee góor mën a mën a fëgg sa buntu kër surtout loolu xam nga mais instant bi xam naa ne yéen góor ñi moom ragal ngeen jigéen ñi ñu baree baree baree baree bëri waaw dañu ñaan yàlla rek yàlla na ko fi yàlla yemale ci barke yonent bi sallallahu wa sallam waaw waa di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla may wér ak wérle di ñaan yàlla nag képp koo xam ne mun nga koo dimbali nga dimbali ko te yàlla rek tax te ñaan yàlla nag fa ko Aziz woon yàlla na ko suñu borom yombal foofu wax dëgg yàlla di ko ñaanal nag ay famem vraiment parce que nag Aziz bokkuma ak moom dara tukulóor la nag may tukulóor waaye dafa mel ni jullit la may jullit ñun ñëpp nag ñoo bokk naqar bi ak tiis bi di ko ñaanal yàlla nag ah mu tëdd yàlla na suuf oyof ci kawam ak waal yi mi nga xam ne yoroon na ko yor bu rafet aussi tamit waaw waaw léegi kenn nekk nii man am naa ay xarit samay xarit am naa leen parce que léegi ku nekk da ngay dute nii est que kii li mu def nii ëllëg est que diw mi du ma ko mën a def xam nga li wa wax surtout ñi nga xam ne tamit ñu ngi yor appartement tey jii am na ñoo xam ne tey jii caméra musul am seen kër mais tey di nga fexe boo ko amul sax di nga dem jaay sa yére wut caméra def ko sa sa néeg parce que loolu yëpp yaa ngi wut sa sécurité xam nga waaw di ñaan yàlla nag yàlla ñu yàlla may jàmm ma parce que may jigéen tamit aussi tamit ma jur te ku nekk xam nga tamit ni jur ni jur mette xam nga te boo sañoon tey jii du la dal parce que yaa ngi am famille yaa ngi am famille muy ku jigéen ki muy ku góor ki parce que tey jii mun na ne mun naa ne tey teg na famille tamit tey jii loo xam ne ni xaaruñu ko woon ci moom surtout tamit yaayam ki mu teg tamit métti tey nekkatu fi tamit metti na tamit ci xol surtout feraram bi nga xam ne taxawoon na nee na nañ ko génne ci yëfi léegi tey bu loolu bu ñëwaatee day nekkaat dëj bu bees day mel ni kon tey Aziz tey la gën a génn àddina xam nga loolu tamit dafa metti waaw dafa metti vraiment waa ñu changé ñu changé te xam ne lu lu am rek suñu borom la ndax yàlla mooy xool ku ko neex mu séddale yàlla mooy xool ni diw mii tey maa ko war a mën a jox tur bii tey waaw kon nag yow nangule ko ci tur boobu yow it yàlla wan na ni yow yaa ngi ànd ak moom même bis dina mës a ñëw yàlla dina la teral nañu bàyyi jalousie bi jalousie bi baaxul te bàyyi di yéenante nit lu bon nit ki ngay ànd ak moom nga ne sa xarit la boo gisee danger ci moom war nga koo war mën a jàppale xam nga loo wax wala nga def ko benn signe boo xam ne yow yëg nga ko daal ne ko ah man de bu doon sama sago tey ji nañ am fu ñu ànd ñu dem toogi fa waaw Mm-hmm. paaka bi lay rey sa waay moo koy daas. waaw loolu moom olof moom yàgg na koo wax moom wax dëgg yàlla loolu moom olof yàgg na koo wax moom paaka bi lay rey moom. Mm-hmm. Mm-hmm. non non aw ma fa information non non aw ma fa non non vraiment. a mais effectivement. ku du dund doo nangu. ku sa ndey ku sa ndey du dund doo nangu nga dangay ngay dugg ci kër googu donte ni du ma ne doomam ku bon la parce que xaw ma doomam mais tey ji histoire boobu waaw moom moo def wala moom deful mais tey kuy kuy góor tey ji nga ma ne dama bëgg a takk doomu diw sa yaay dina rayanteeg yow ak image yi mu dawee xam nga loo wax ñëpp a koy seetaan kon nañ changé jikko yi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy yaay sa xarit yéene ko jàmm bu amee jàmm yéene la jàmm waaw loolu daal mooy li nga xam ne dafa am solo daal vraiment ñi changé waat nag suñu jikko yi yéene ñëpp jàmm te xam ne lu nit am jàppal ne yàlla suñu borom moo ko jox du moom moo ko jox boppam sàkkalu ko tamit boppam kon nañ defaraat jikko yi ndax jikko yi mooy lépp vraiment waaw jërëjëf merci beaucoup voilà ñu ngi koy euh, jaajëfal bu baax a baax euh, moom tamit euh, suñu maman bi wax na lu am solo lool lool waaye paak bi lay rendi sa waaye koy daas daal di koy jox sa noonu ñu daal di jëlaat quelques interventions lay jàlloo ñu jël rek quelques interventions ci bile mbir ci bile mbir jëlaat ay personnalité ñuy baax mais gis naa jeunesse jeunesse bi daal vraiment war nañu xalaat seen bopp bàyyi drogue bàyyi tux bàyyi sàcc bàyyi carte te nangoo dem liggéeyi quoi xam nga li yëpp boo xoolee ay man damay gis ni maanaam régé euh, réglementé réglementé contre contre contre la quoi pour waa Pikine war nañu xalaat seen bopp baax a baax defaat seen image bu baax xam lii dafa ñaaw quoi vraiment en tout cas daal vraiment lii ñun ñu koy ñaawlu ci moment bu ma amee vraiment ak ñu ko def ak lu seq Aziz ak ñu ko jegee vraiment lu ñaaw a ñaaw la loo xam ne daal vraiment war nañu xalaat suñu bopp image bu Pikine daal vraiment mu ngi yàqu te warul yàqu vraiment Pikine ñu baax rek nekk sérieusement vraiment ñu baax rek nekk en tout cas daal juge bi daal ñu ngi ñaan mu def liggéeyam procureur def liggéeyam ñu ñu attee mbir mi teg ko ci yoon xam nga nag vraiment lii dafa ñaaw man Ligue nationale pour la lutte le terrorisme waaw non ndaw ñi dañoo war a dem liggéey bay kat bay tux bay sàcc bàyyi tapale xam nga liggéey. ma c'est ça loolu la maanaam maanaam nit da ngay am kilifa boo nekkee ndaw da ngay kilifa nekk responsable nga am kilifa di def lii dafa ñaaw. Mhm. Aziz ñi ko jege ñoo def lii. ñi ko jege ñi ko xam ñoo def lii kon maanaam maanaam confiance du amati. kenn du wóolooti kenn. ki nga jege wóolu la moom moo la mën def moo la mën def lii xoolal Fatoumata Mata Ndiaye kaka rey mhm. chauffeur am la. femme bi nekk ridis fii keke keke rey keke jege keke maanaam keke la kon maanaam confiance dafa xam même histoire moo ñëwaat ci surtout Pikine martig ñaaw yëpp Pikine la kon Pikine war nañu xoolaat seen bopp defar suñu image Pikine dafa ñaaw en daal man damay damay alerter bi alerter autorité yi xam ne Pikine ñu baax ñoo fi nekk mais ndaw ñi ñu amul jom surtout autorités yi a taxaw ku jekku da ngay autorité bu am tu as dem nga sa maanaam ñoom Pikine daal élection bu jotee ñu mbubboo ñu mbubboo waa Pikine soo leen t-shirt soo leen kaar lamb caaxaan rek arène baa ngi nii fi ne ko tabax maanaam Pikine lañ yàpp maanaam joxuñu Pikine nawle moo tax stade bi dañoo xeex bu ñu def bu mais dañoo dañoo tabaxal arène nationale nee nañ kaa leen bëree maanaam li ngeen xam Pikine li la xam bëree gàtt xaalis tappale te mag ñi bàyyi bàyyi ñu fa loolu bàyyi ñu fa woon loolu vraiment. ñu bëri di wax euh, peine de mort. peine dafa ko dafa ko ñëwaat mooy dëgg. nag ñun mënu nag ñun mënuñu ëpp yàlla atte si jaam ñi mënuñu ëpp yërmande yàlla si jaam ñi ku rey dañ la war a rey ku sàcc ñu dagg sa loxo comprendre nga loolu bu amee rek mu jeex perte de mort dafa ñëwaat ñu atte jaam ñi ku sàcc ñu dagg sa ku rey nit ñu rey la nag rey dafa ñaaw dafa yomb trop quoi benn vingt ans benn yaa xam aba nga génnaat dafa yomb ki dee moom day perte fa même perte njabootam perte te warul demee noonu ku rey dañ la war a rey jëm la stade amitié dajale mbooloo ba ñëpp taxaw ñu dool la bal nga dee ñu xam ne su boobaa kenn mais dafa yomb trop ah. waaw ok merci beaucoup. merci ñu ngi koy euh, jaajëfal bu euh, baax a baax moom tamit euh, wax na ci Pikine na nga xam ne rek noonu la daal di tëddee ak i tamit leen yi nga xam ne rek ñu ngi ko fi. Euh, daal di euh, nemmeeku ci loolu la daal di euh, xamle ak comportement bi nga xam ne waa Pikine war nañ koo mën a amee ndax xam mi nga xam ne que ne jëfkatu ñaawte fii ci ëpp rek fii ci Pikine lañ koy daal di déggee et mu nekk mbir moo xam ni gis na ne daal war na mën a jeex et suñu autorité yi war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax. war nañ ci mën a euh, bàyyi xel euh, ñoom tamit euh, comme niñ koy waxee rek ñu fàttali war leen rek ñi ngi woon fii ci palais de justice fii ci pikin la nga xam ne moom moo la ñu fii daal di jote wala la nga xam moom moo ñu fii daal di teewlu woon rek mooy que la nga xam ne ñu daal di l' intervention bi di kat voilà lépp rek ngir dégtal mbokk internautes yi ñu xam exactement réaction yi nga xam ne population bi am nañ. fa àll maa kon l'islam wax waxat naa fii anna nas bi nas wala ayn bil ayn soo ko defoon te yëpp dinañ dee parce que yàlla jugé na ba pare parce que ko rey nit il faut ni rey na loolu l'islam wax waxat naa fi ana nas bi nas wal ay bil ay léegi lu des nag leen dëpp jeunesse bi ñooñu bopp ñooñu xoolaat seen bopp nañu xoolaat seen bopp bu baax parce que dëkk bi métti na soo xoolee doomu aadama nga rey ko loolu doolu affaire beneen affaire la nañu xoolaat seen bopp na ragal yàlla parce que nit yi ragal suñu yàlla lu ñu ragal xaalis xaalis xaalis day jeex alal addun day jeex fii nga dee bàyyi ko fii ragal yow ak sa borom yalla rek moo buur moo mooy xaañ moo moo ku ko neex lay def mhm. waaw mu ne fa alul li maa yuri man rek maa mun kenn munul du dul man kese man yàlla suñu borom soo neexee ma rey la du police de gendarme mun kenn kenn munu ci man dara yàlla rek moo mun loolu léegi nag nañ dooloo suñu bopp si yàlla loolu laa ñaan jeunesse bi nañ xoolaa seen bopp nañ xoolaa seen bopp ñun ay julli lañ di julli lu du dëkk boo xam ne dëkk boo xam ne ay du musulman ni ko fii parce que ay sëriñ lu am valeur ñoo nekk si dëkk bi waaw léegi il faut ñu xoolaat suñu bopp merci jërëjëf waay. merci beaucoup ñu ngi jaajëfal ñëpp ñëpp ñëpp euh, ñu ngi jaajëfal ñëpp. léegi rek ñu daal di euh, toppaat li nga xam ne rek moom mooy intervention yi maanaam daal ku nekk wax li nga xam ne moom mooy xalaatam ci mbir. ñu foog ne loolu mooy live yi c' est voilà sëñ bi euh, ñu buggoon a euh, gis rek euh, voilà mën nga ñu may quelques minutes rek. voilà baal nañ la ko mi ngi noon nag ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax léegi nag lépp rek gis ngeen bu baax a baax la nga xam ne moom la nit ñi daal di wax ci biile mbir lañ ca mën a jàpp daal mooy que mandat de dépôt bi nga xam ni parquet addu woon na ko moom la ñu daal di gën a fësal te mbirum ki nga xam ne rek moom mooy Nabou Leye yi attiré woon euh, sénégalais yi yu bëri moo xam euh, fii ci biir réew ak euh, bitim réew ñu xamal mbir moom la nag moom na bu gëy de près ou de loin moom nag laale na ca boobi li mbir du samay kaddu waaye mbir yi na mu demee ak kaddu yi nga xam ne jukkee na ak coow li nga xam ne rek am na ci boobi li mbir ndax ndiki tey mi ngi fi woon ak yeneen si suspect yi moom nag daal di koy def septième ba léegi ba léegi rek euh, mbir moom moomile euh, mooy wéy euh, di continuer tey ci suba tey ci ay 5 heures du matin lañ fi ñëwoon fii ci palais de justice gis nañ ne nag ba 14 heures jotee lañ leen daal di génne yóbbu leen te ñetti auto police ñoo daal di jiirlante ci benn bi nag ci la ñu daal di dugg auto ba mujj bi muy waa auto administration pénitentiaire moo topp ci seen ginnaaw d' après loolu lañ am xibaar que ne kat mandat de dépôt daal mooy daal di xeeñ ci ñoom ginnaaw rek ba parquet sàkkuwoon li ginnaaw itam ba doyen des juges daal di euh, jëlee boobu li euh, dossier moom la ñu daal di euh, désigné comme juge bi nga xam ne rek moom moo war a sëgg ci boobu li boobu li mbir l' essentiel mooy que mbir mi jeexagul ba léegi jeexagul ba léegi moo xaar leen ko encore une fois jël nañ ko toppal bu baax a baax a baax ndax langa xam ne àddu nañ ko euh, mu nekk ay euh, maanaam aveu yoo xam def nañ ko amaana yéen nii dafa xaw a légère de trop léegi nag lépp loo xam ne rek fës na ci euh, dinañ ko daal di dégtal bu baax a baax a baax di jaajëfal mbokk ami interne solution TV di jaajëfal Lay Diallo mi nekkoon ci caméra bi tey nag lii moo xewoon fii nii ci palais de justice bu Pikine ak Guédiawaye di leen jaajëfalaat bu baax baax di jaajëfal toute l'équipe de solution TV di leen joxaat di daje ci kanam tuuti ak ak yeneen